Toute tey yi euh, dañu accueillir semaine bii suis partenaire yu jógee centre spatial Universel bu Montpellier centre spatial Universel bu Montpellier dafa nekk centre pour xam ne dafa xarañ ci mbiru defar ak euh, exploiter euh, ay satellites yu ndaw donc mon ak ministère de l'enseignement supérieur dañu am convention maanaam dañu xaatim benn kayit boo xam ne moo di link pour ñu liguer, ci xaatim boobu nag tax na ñun ñu former. xam ne dañoo jàng ba génn suñu école d'ingénieurs yi yu Sénégal ñu yën ñu yóbbu leen foofu ñu jàng fa ni ñuy defaree ak ni ñuy exploiter satellite euh, ñooñu am nañ ci fi ne nii juróom ingénieur ak juróomi euh, technicien yoo xam ne formé nañ leen donc ñoom ñuy liggéey tey jii satellite du Sénégal bu njëkk bi mooy satellite bu ndaw léegi satellite boobu noonu nag dañ ko war a bu pare dañ ko war a yóbbu ci jaww ji muy tourner di wër àdduna bi mais nag buy wër àdduna bi buy di jël ay information il faut que information yooyu muy jël données yooyu muy jël ñu mën ko jot te kenn mënul yéeg satellite bi donc day am lu ñuy wax centre de contrôle et de réception centre boobu mooy jumtukaay bi ñu def fii nii nga xam ni satellite bu jaaree tiimee Sénégal day jokkoo ak moom jël information yi nga xam ne moom la satellite bi yore et aussi bu fekkee dañoo bëgg a jox information ay instruction satellite bi mu mën ñu mën ko envoyer par boobu noonu donc moo taxoon ñu ñëw tey jii ànd ak euh, suñ partenaire centre spatial université de Montpellier ànd ak waa ARTP nga xam ne ñoom ñooy euh, lijjanti lépp muy mbiru fréquence euh, Sénégal parce que satellite fréquence lay doxe donc ñu ñëwoon xool zone bi xool est-ce que maanaam yemb na daal pour ñu fi def loolu moom donc xool nañ ko baax gis nañ ne vraiment mën nañ fi def loolu moom centre bi donc centre bi lan lay doon mooy dañ fi def benn antenne boo xam ne ci kaw fi lañ koy suñu wet nga xam ne satellite bu ñëwee bu jaaree tiimee Sénégal rek mu jokkoo ak moom waxtaan ak moom jël données yi wala mu wax ko lim soxla donc ci suuf am na salle bu mag bu ñu fa visité léegi salle boobu mooy nekk centre de contrôle foofu la machine yi nekk ak nit ñi nga xam ne ñooy xel di liggéey di jokkoo ak satellite bi di jël ay données donc loolu mooy suñu suñu suñu visite tey bi. Nous avons déjà lancé 5 satellites nous étions capables d'apporter cette expertise utile parce qu'il va permettre aux populations de recevoir des alertes et de bénéficier de toute l'aide qu'on peut leur apporter sur la problématique de l'eau, qui est une problématique que nous partageons également actuellement dans le sud de la France avec une grosse pénurie d'eau. Et enfin, intelligent parce que c'est un projet qui a misé sur la formation des jeunes. Et de ce point de vue-là, c'est totalement légitime que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui le porte, puisque le but ultime de ce projet, c'est de former les étudiants aux techniques du spatial. Le spatial, c'est quelque chose d'absolument impitoyable. Vous avez vu par, dans les jours qui ont précédé les échecs de grandes compagnies avec le Starship par exemple. Donc on peut très bien lors d'un lancement perdre un satellite. Lorsqu'on l'a acheté simplement sur étagère, c'est une catastrophe. Mais dans le cas du projet qui nous intéresse, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était un projet qui était intelligent, même si le satellite explosait au décollage, il resterait ces jeunes qui ont été formés et qui vont pouvoir à leur tour former d'autres personnes. Ça, c'est le rôle du maîtrise, c'est le rôle de l'enseignement supérieur, c'est le rôle de la recherche. Et c'est pour ça que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre des universitaires. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça que nous avons apporté. Nous avons apporté notre compétence, notre expertise. Mais le satellite, lui, il est vraiment fabriqué par des Sénégalais.